fekkee nag moom day jébéer moom ki ñu fase day jaam bu jigéen man naa muy jaam bu jigéen bu sotti man naa mu laal ci njaam ki ñu goreel lennam bàyyi lennam kooku bu fekkee dina gis deret iddaam yaari laab lay doon maanaam bu ñu ko fasee fekkee daa am jëkkër jëkkër ja fase ko yaari laab lay doon bu amee yaari laab rek daal di mën a séywaat moo xam gor su jigéen saa moo xam jébéer baa duñu seet ba xam jëkkëram ja ko yoroon ba fase ko gor la wala jaam la moom jigéen ci bopp la ñuy seet rek moom bu dee goro ñu waxal ko yetti laab ndegam dana gis deret bu dee jébéer ñu waxal ko yaari laab waaye léegi nag amatul teqale ñëpp rek gor lañu képp ku ñu fase daal te fekk ngay gis deret moom ay laab ngay waññi ba am yetti laab rek daal di mën a wutiwaat jëkkëram wal aqraaw aqraaw xiyee ñoom al athaaru ñooy laab ya allati ya nga xam ne bay na damay ni nekk nañ diggante yaari deret ya bi suñ boroom ne wal mutallaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna salaasata qurooyin yetti yetti quroow yooyu baatu al xar'u daañ jàng xar'u daañ jàng xur'u yëpp benn la dana firi laab di firi mbërëg su ko defee nag ci yoonu Maalik moom dañ koy firi ay laab nga xam ne kon jigéen ji ay laab lay wàññi suñ ko fasee te fekk mu toll ci laab day wàññi googa laab muy genn su ci saatee deret ba laab mu yaari laab su ci saatee deret nag ba laab mu daal nekk yetti laab waaye nag laab googeen wax ne mooy laab gu ñetteel ga kat bu tolloo ca laab ga di su ko mayee fa saasa dañuy bàyyi ba deret topp ca bu ci deret toppee la ñuy xam ne laab gu ñetteel ga mat na bu ñu fasee jigéen ja ci jamono yi gis deret nag moom day bàyyi ba deret jooja jeex laab ga ca sës ca lay tàmbalee wàññee nga xam ne kon moom dana dem ba gis dereti ñeenteelam ñu door koo sañ a maye nu leeral foofu ne bañuñu ñu maye jigéen ci jamono yam gisee deret déedéet dañuy bañ kay ku fase jigéen ca ba mu gisee deret waaye bañuñu ku maye jigéen ca ba mu gisee deret fa in kaanat dem nekk na mi man di jigéen joo xam ne lamta xidd matuta mbërëg aw mi man wala muy jigéen joo xam ne xat ya isat naago na minal maxidi ci mbërëg fa salaasat ashurin kon yetti weer lay doon fil xurrati ci gor wala amati ak jëbeer bu fekkee kañu fase daa ndawee ba du gis deret mbaam magee ba du ko gisati kon iddaam yetti weer lay doon moo xam nag day gor moo xam day jëbeer ba tey nu leeral foofu ne bis bañ ko fasee dañuy seet waxtu wa buñ ko fasee ci njëkk fenku fajar moom dana wàññiwaale bis booba maanaam daal bi jant bi soyee jëm ci ñu noddu salaatu bu fekkee diggante boobu lañu ko fasee kon dana wàññi bëccëg bi nga xam ne ci la jëm tàmbalee ci ñetti weer ya waaye nag gannaaw bu fajar fenkee la ca dale ba jant ba so bu ñu ko fa fasee moom jigéen ja bis booba du ko wàññiwaale ca ñetti weer ya bis ba ca toppaat ca lay tàmbalee wàññi ñetti weer ya waa iddatul xorrati idday gor su jigéen sa al mustahaadati say aji amee deret jàngoro awil amati wala jébbeer ba fi talaaxi ca pase ma sanatun at lay doon kañu fase moo xam day gor moo xam day jébbeer bu fekkee day gis dereti jàngoro te du ko mën a xàmmeeg deret dëgg-dëgg kooku faw dana toog diiru at door a mën a wutiwaat jëkkër ndax dañ koy toogloo juróom-ñeenti weer mu di ak laablu bu juróom-ñeenti weer ya matee ñu tegloo ko ca ñetti weer kon mu daal di nekk at te bu fekkoon ne mën naa xàmmee dereti jàngoro ja ak deret ju wér ja nekkul jàngoro kon moom bu gisee deret ju wér ja danañ ci xamee ne moom mi ëmbut mu daal di mën a wuti jëkkër waaye nag mëntu xàmmee nag yaari deret yi moom na toog diiru at ba tey koo xam ne daa gisul deret te la ko ko too gis kat xamu ko amul benn sabab buñ ne moo tee mu gis deret mbaa boog la tee mu gis ko mooy tawat di ko dal ci yaramam kooku ba te ati benn la na toog at mu mat sëkk door a wuti jëkkër nga seetlu ne daa tudde at ma lépp idda waaye déedéet juróom yeenti weer ya ak laablu lay doon yetti weer yañ cay teg nag ba mat at mooy doon idda ja dëgg-dëgg te kat bu toogee loolu ba noppi tam yëg ci biiram li nuru ne ab ëmb la xaw a sikki sàkk ne ëmb naam ëmbut dañ ko wax ne ko toogal rek ba kere ngay xam ne yow mii ëmb nekkul ci yow loolu na mën naa yàgg ba mat ñeenti at jenn wax ji mbaa juróomi at ndax gën jaa yàgg yi ëmb moom juróomi at mooy wax ji gën a sori am nañu wax itam ñeenti at kon jàppal ne jigéen ji nga xam ne doon na iddawu am lu mu yëg ci biiram loo xam ne xamul ba xam doom la am du doom amu ci lu ko wóor kooku moom day toog rek ba kere muy toog ñeenti at mbaa juróom loolu mooy mooy gën jaa yàgg ëmb moom xam ne ëmb mënu ko am te judduwut wa iddatul xaamili idday aji ëmb fii wafaatin ci ak faatu aw talaaxin wala pase wadduhu xamliha moo di mucc ëmbam ba moo xam ëmb ba mat na moo xam ëmb ba matut taaran moo xam nekk na xorootan di gor aw amatan wala muy jëbéer aw kitaabiyat wala muy ko jug téere idday ku ëmb moom moo di rek juddug ëmb ba mu ëmboon su juddoo rek iddaam jeex na moo xam dañu ko fase moo xam jëkkëram dafa faatu moo xam day gor moo xam day jëbéer moo xam day julit moo xam daa bokk ci diine yahud mbaa nasaraan waaye nag bu fekkee ne ëmb ba de su ko bàyyeelee góor ga ko ëmbal ni ki njaaloo moom dañuy bàyyi ba la mu ëmboon juddu mu tegaat ca yetti laab bu ca tegaatee yetti laab nag idda ja door a jeex te wax ji gën a wóor mooy du ñu wàññi am nga doom mu di ak laab dañuy bàyyi ba mu am doom ba noppi tegaat ca yeneen yetti laab le wasin wa muy genn laab waaye wax ji gën a wóor mooy deesu ko wàññi waal day toogaat ba amaat yeneen yetti laab yu bokkut ak wasin wa ndegam doom ja du doomi yoon wal mutallaxatu kañu fase allati ka nga xam ne lam yedd xul jëkkër wértoon bi xaak moom laa xiddata déet idda alayha di ko war jigéen biñ ko fasee te jëkkëram jë jotiwut ak moom dara ak may rek moo doxoon seen diggante kon jigéen jooju idda waru ko dañ ko mayawaat fi saasa ba tey bu neexee ko katakoon mu wëlbati ko takkaat ko ndegam lam ko fase matul ñett kon jàppal ne kuñ fase te moo kañ ko mayoon jotiwuñu woon dara lu may bu nga rek fa jaaroon waaye jotiwuñ dara kon bu ko fasee rek fi saasa mën naa daal di wutiwaat jëkkër waaye nag ku mayeen jëkkër far jëkkër ji faatu du ko tee iddawu iddawu faatu moom loolu aaju woon naa teqali foofu wax iddatul xorrati xidday gor su jigéen minel wafaati cig faatu arbaxatu ashurin yeenti weer la wax ashurin ak fukki fan kaaran moo kaaran moo xam nekk na saxiratan di gone aw kabiratan wala muy mag daxale moo xam wéetoon na biha ak moom aw la muy doxul wala wéetoon ak moom kaaran moo xam nekkoon na muslimatan di jullit bu jigéen aw kitaabi yet wala muy ko jug téere nee na bu fekkee ne jamono wi taalife la jigéen ñi nekk ñaar gor ak jébéer kon nee na bu dee gor moom jëkkëram faatu iddaam dana war a mat yeenti weer ak fukki fan duñ seet nag ba xam moom jigéen jooju gone la wala mag la moo xam jëkkër ji wéet naag moom moo xam wéetut ak moom moo xam jullit la moo xam daa nekk diine yoxoon mbaa nasaraan lu ñu ci mën doon daal ne comme góor la rek moom dana war a iddawu diirub ñeenti weer ak fukki fan su amee ñeenti weer ak fukki fan nag te nga xam ne gis na deret ci biir ñeenti weer ak fukki fan kon mën naa daal di wuti jëkkër bu fekkee ne it daa toll woon ci nàmpal nàmpal gaa tax gisul deret ba tey mën naa daal di wuti jëkkër bu fekkee ne itam moom day am ñeenti weer ak fukki fan waxtu gis deretam door a ñëw niki moom dafa aada woo woon juróomi weer yu ne lay gis deret te naka mu ci deret balaab ca jëkkëram faatu kon xam nga bala koo gisaat am juróomi weer te kon dana weesu yeenti weer ak fukki fan waxtu gis deretam door a ñëw ku mel ne kooku ba tey bu yeenti weer ak fukki fan matee rek mënees na ko daal di mayewaat yooyu yëpp daal moom gis nga ne ngir bi wax bu jeexee rek mënees na ko daal di mayewaat waaye nag bu fekkee day koo xam ne gisul deret ci diirub yeenti weer yeeg fukki fan te it la tee mu gis ko mooy jàngoro ju nekk ci yaramam mbaa daa mënta xàmmee dereti jàngoro ak judul jot jàngoro ne moom mi ngi gis deret waaye mënu leen a xàmmee mbaa boog ñàkkam ñàkk a gis deret daal moom xamuñu dara dara dara lu ko sabab yooyu moom ñoo bokk balaa mën a wutiwaat jëkkër rek faaw nañ bàyyi ba mu gis deret mbaa bu fekkee gisul deret mu am juróom yeenti weer ndax bu amee juróom yeenti weer moom bu ëmb nekkee ci moom dana war a feeñ su amee juróom ñeenti weer nag kon te gisul deret waaye yëgul ci biiram dara dara dara lu muy naa tabli naa ëmb laam du ëmb kon mën naa wutiwaat jëkkër waaye kat su fekkee am na juróom ñeenti weer waaye am na lu mu ñaaw njort ci biiram ne ab ëmb la kon lañ la waxoon rek day toog gën jaa yàggi ëmb te gën jaa yàggi ëmb mooy juróomi at mbaa ñeenti at ndegam mi ngi wóoral di ko boppam rek moom ci ëmb moom na toog ba àgg ci ñeenti at mbaa juróom juróom yi sax moo gën a wóor ndax moo gën a sori bu dee nag jigéen jee jëkkëram faatu dafa ndawe ba du gis deret mbaa mu mage ba du gis deret mbaa sax yàlla def na jëkkëram jotute wéet ak moom ak may rek moo fi doxoon jëkkër ja faatu mu daal di war a iddawu ñii moom ku mu ci mën doon rek bu yeenti weer yaag fukki fan matee mën naa daal di séyiwaat amul dara dara luñ cay néggandiku wa fil amat nekk na ci jébbeer wa man ak nga xam ne fiihaa nekk na ci moom baqiyatu riqi ndesiiti njaam shahraani yaari weer wa xam su layaali ak juróomi guddi nee na nag bu fekkee ne ka jëkkëram faatu day jaam bu sotti mooy jaam bu jigéen bu sotti mbaa mu laal ci njaam kon day am yaari weer ak juróomi fan muy xaajub la nga waxaloon gorsa maalam tartab li fekk sikki sàkkawut alkabiratu mag ma daatul xaydi may borom bërëg bit axiri yi ci yeexeem nga an waqati yi wali si waxtoom fa taqxudu kon dana jekki xataa dasxaba ba dem arribatu sikki sàkk ga jamono jam doon taalife nga xam ne dañ doon teqale gor ak jaam kon jaam bu jigéen bu jëkkëram faatoo iddaam mooy xaajub la gor daan toog te loolu mooy ñaari weer ak juróomi fan waaye moom it da ngay wax ne bu fekkee ni daal jëkkëram ja faatu jotewut ak moom dara daa faatu rek mu war a iddawu mbaa boog moom dafa ndawe mbaa mu mage ba du gis deret kon mbaa boog far na gis deret ci diirub yaari weer yeeg juróomi fan mbaa la tee mu gis ca deret mooy nàmpal yooyu yëpp kon daal na mën a wutiwaat jëkkër ci bi mu amee yaari weer ak juróomi fan waaye nag bu fekkee ne moom jëkkëram wéetoon naa ak moom te it dana gis deret te gisul deret ci diirub yaari weer yeeg juróomi fan kon kooku na xaar ba am yetti weer muy gën a wóor na dem ba mat ñetti weer moo gën a wóor te it bu amee yetti weer ya te wóolooli ko ci boppam ëmb day aajowoo mu toog juróom-ñeenti weer mu di ak laablu bu toogee juróom-ñeenti weer nag te wóor ko ni moom mi dara ëmb nekkul ci moom kon mën naa wutiwaat jëkkër bu juróom-ñeenti weer ya matee it tam wóoloo di ko ci boppam ëmb daal di war a xaar gën jaa yàggi ëmb te moo di juróomi at lee mu wax nag tàmbalee ko ci maalam tartab alkabiratu daatul xayd bi taxiirihi moom gor su jigéen si ak jébbéer bi ñoo ko bokkule koo ci xam ne jeexal nga sa diruk idda te bu dee gor su jigéen si mooy yeenti weer ya ak fukki fan bu dee jébéer bi mooy yaari weer ya ak juróomi fan ko ci xam ne jeexal nga diir boobu waaye gisoo ci deret te waxtu wa nga war a gisee deret daa ak seegut kon doo daal di wuti jëkkër fa saasa da ngay xaar rek ba ameetoo genn wóoloodiku ci sa bopp loolu nag ma ngay amee ci nga toog ba yàgg nga gis deret mbaa nga dem ba am juróom yeenti weer soo gisee deret moom dana la wóor ne yow mi ëmboo soo amee juróom ñeenti weer itam bu ëmb nekkee ci yow war naa feeñ waaye nag nu fàttalee ne bu amee juróom ñeenti weer ya yëg ci biiram nag loo xam daa jàpp ne ab ëmb la maanaam daal ragal na ne ab ëmb la kon kat nañ ko waxe woon faaw mu toog gën jaa yàggi diirub ëmb te mooy juróomi at ñu bañ a fàtte ne saa yu jigéen ji ñaawe njort ci ne moom mii ab ëmb nekk ci biiram li fekk mu ci am lu ko wóor rek moom du sañ a wutiwaat jëkkër xanaa mu dem a dem ba toog diirub gën jaa yàggi ëmb te mooy juróomi at su boobaa nag moom ñu xam ne loola du ëmb ndax gën jaa yàggi diiru ëmb moom mënta weesu juróomi at gën ngaa sori wa amal lëti ndaal jébbéer ba nga xam ne laa tax yi du mbërëg li si xëri ngir ak ndawe aw kibari wala ak mage waxat banaata jëkkëram wéetoon na biha ak moom falaa tun kaxu def ko takk fil wafaati ci faatu ga illaa baxda salaasati ashurin dara ci gannaaw yetti weer loolu da ko wax rek waaye sukkandikoo wuñ ko ndax daa wax ne jébbéer boo xam ne jëkkëram wéetoon naa ak moom bu fekkee du gis deret ngir ak ndawee ma tax wala ngir ak magee ma tax ndegam jëkkër wéetoo naag moom door a faatu rek faaw dana toog ba am ñetti weer door a wutiwaat jëkkër wax jëgën a wóor nag mooy kooku ndegam moom la ko tee gis deret mooy rek ak ndawee mbaa ak mage bu xasee am ñaari weer ak juróomi fan rek doy na sëkk mën naa daal di wutiwaat jëkkër ka aajo wa mu xaar ñetti weer kay mooy jébbéer boo xam ne jëkkëram wéetoon naa moom laata muy faatu te jëkkëram daana am doom te moom mii diirub yaari weer yi ak juróomi fan gisu fi deret benn yoon moom toll na ci gis deret te gisu fi deret benn yoon te jëkkëram wéetoon naa moom te daana am doom kooku kay mooy aajo wa mu xaar yetti weer te bañ a yem ci yaari weer ak juróomi fan kon nga jàpp teqale boobu wal ihdaadu tenj tenj mooy ñaawlu an laa taqraba mooy bañee jege al mu'tadatu aji xiddawu ja minal wafaat ci faatu che an dara mina siinati ci waajtaay bi xolli yin ci ay takkaay aw kuxul ni wala sungal aw xëyri yi mbaalutul moom tenj mooy ñaawlu mooy jigéen ji ndegam jëkkëram faatu na bañ laal dara ci waajtaayu àdduna bu dee xeeti yére yu rafet mbaa xeet takkaay mbaa xeet gu neex yépp daal moytu ko ba diiru idda ji jeex dañu ko miina tudde muuru fekk na muuru moom bu dee sàng awra ji nam ware woon jigéen ji ba jëkkëram faatoogut ba tey bu jëkkëram faatoo noonu rek la koy ware amu ca genn soppiku kon boo déggee ñu wax muuru ten tudde ko léegi fii ténj xamal na rek mooy jigéen ji ndegam jëkkëram génn àdduna mu sàmm ormay jëkkëram ji door a génn àdduna bañ a laal waajtaayu àdduna ba kera idda ji jeex loolu képp kat mooy muuru ga mooy tenju ga mbaa nga tudde ko ak ñaawlu yiñ ciy boole yépp nag moom day sonal jigéen ja ba noppi te du ci am tuyaaba mel ne teg ga muy teg ab layo ak ay paaka mbaa sàkk bis bu muy sangu mbaa sàkk bis bu muy fóot mbaa bu fóotee ba weer ko li feek lam weeroon di wow du sañ a génn yu demee noonu loolu lépp aaday rekk la kon nag jëpp jigéen joo xam ne toll na ci jamonoy muuru day laaj koo xam ne ku amu xam la ku amu maandu la mu leeral ko rek la nga xam ne moom la sañ ak la mu sañut mu yem ca képp bañ caa dolli dara ndax bu dul loolu te cay tegoo coono yu rëy rëy te du ci am jenn tuyaaba na moytu itam li ñu wax naa day njëkk a julli balaa waxtu waa jot mbaa ñu naa bindee ñaari jigéen mbaa ñett te ci am ku jiite moroom ma mbaa ñu defe ne seen jëkkër ci faatu moom la ñuy liggéeyal moom la ñuy jaamu ci misaal déedéet yàlla rek la ñuy jaamu waxtu yu julli yu sottu ko wut te jigéen du jiite moroom ma kenn ku nekk day julli julli boppam rek nañu moytu itam tàllal seeni tànk jëmale xibla te du ngànte ko waral ndax dañoo bëggoon ku fonk xibla ba nga xam ne doo tàllal say tànk jëmale ca ñoom daa mel ne dañ leen di wax ni ngeen tàllal seeni tànk mu jëm xibla te duñ ko sañ a bank ba mujj day metti ci ñoom te loolu bank kay lañ waran def mbaa boog suñ demee mënt ñàkk ñu door koo tàllal jëmale xibla kon daal ku toll ci muuru googu daal na laaj bu baax ñu xamal ko te mu topp lañ ko xamal bañ caa sonn coono boo xam ne da nga ci am far bàkkaar te doo ci am tuyaaba wata tani bu dina teet a sibaaxa cuub ga kullahoo léppam ilal aswada ndari aj ñul kukk nee na kuy ténj na moytoo sol yëre suub ndegam dañ koo suub ngir waaje ko du ko mën a sol bu dee ci aada arab yi nga xam ne boobu dañu commencé am aw naqar da ngay sol yëre yu ñuul kon ñoom mën nañoo sol yëre yu ñuul cuub gu ñuul ndax loolu aada yi seen aada la ci ku toll ci naqar kon bépp yére boo xam ne rek daañu koy waaje foofa moom du ko sañ a sol ci jamono ya muy ténj moo xam dañ ko suub cuub gu ñuul wala cuub gu mel neneen bu dee nag dañoo aadawoo yére sàngam ku am naqar da nga koy sol kon yére yu mel noonu mën na koo sol ndax moom daa amu naqar day ténj day ñaawlu waaye daal lépp luñ cee waaj ci xeeti yére yi rek ak nuñ ko mën di suubee ak nuñ ko mën di rafetale moo xam daa ñuul moo xam daa mel neneen ndegam lu ñuy waajale ci béréb booba rek moom du ko sañ a sol diirub idda jiy jeex wataj tani bi dina teet at yi bëggat kullaxoo léppam na moytu lépp lu ne xet du ko sañ a laal wala tax tadibu du réexoo bixi naayin ci fuddan wala taqrabu te du jegeñ du xënan diw mu tayaban guddi guñ teeyal wala tam tasitu te du jartoo bi maa ci loo xam ne yax tamiru day jaxasoo fira asiha ci boppam du sañ a fuddanu du sañ a diwoo diw gu neex du sañ a jartoo kawaram dara lu ne xeet loo xam ne daa bokk ci xeeti gëtt yi moom daal lépp luy xeetu waajtaay mbaa xeetu lu ne xet rek na koy moytu waxal amati war na jébbeer wal xurrati ak gortu jigéen ak saxirati kay aji ndawe wal kabirit ak mag ma al ihdaadu tenj tenj googu nag moom nee na ka jëkkëram faatu daañu ko koy sant ak ku mën doon moo xam ka jëkkëram faatu daal moom moo xam jébéer la moo xam gor la moo xam gone la moo xam mag la tenj googu te mooy ñaawlu bañ a sol yére yi waajtaay mbaalu ne xet bañ a laalu ne xet loolu lu ko waral la sañu koo bañ waxtu li fa wóoteef na nag fil kitaab bi yet ci ko jug téere maanaam bu fekkee ne jigéen ji dafa bokkoon ci diine yahood ba diine nasaraan jëkkëram faatu di ab julit idda ja mënu koo ñàkk sàmm waaye ndax dana tënj wala du tënj nag ca la ñu wutee wax ci gën a wër nag mooy waaw dana tënj kay dana ñaawloo walay sa xalal mu tallaqati dee di war ku ñu fase ka ihdaadun tënj te mooy ñaawlu maanaam jigéen bu ko jëkkëram fase du aajowoo muy bàyyi waajtaay déedéet ka jëkkëram faatu kay la ñuy wax mu bàyyi waajtaay ndax sàmm ormay jëkkëram ji faatu waaye koo xam ne jëkkëram faatu da ko fase rek du aajowoo muy bàyyi waajtaay mën naa waaj moom wa tuj baru def na forcé al xurratu gor su jigéen sa alkitaab bi yët say ko jub téere xal xiddati ca xidda ja minal muslimi ci jullit ba fi wa faati ca faatu ga wa talaax ak pase ma bu fekkee ne gor sii di yëhoot mbaa nasaraan ab julit moo ko yoroon ba fase ko mbaa julit ba faatu dañ koy wax ne ko yow kat doo mën a ñàkk sàmmonteeg idda ji idda ji moom faaw nga sàmm ko lañu wuti woon kay mooy ndax des na ko ténjiloo ci forcé wala déet waaye sàmmonteeg idda ji moom mënta ñàkk ndax ndegam ko yoroon julit la rek moom wa des naa sàmm askan foofu ba duñ ko bàyyi muy wutiwaat jëkkër te du idda ji daa mat wax iddatu umil wala di idday umu wala min wa faatu sayyidiha ngir faatu sangam ba xaydatun menn bërëg lay doon da ko tudde idda rek waaye ak laablu la umul walat mooy jaam bu jigéen boo xam ne ab sangam daa am ak moom doom kooku dañ koy wax ne ko doo ko sañ a jaayati danga koy téye rek bis boo faatoo yow sang bi moom mu gore léegi nag bu sang ba faatoo bañ ne wa gore na bañ ne gore na kon na muy laabloo mooy toog ba gis deret benn yoon bu gisee deret benn yoon rek la muy tekki mooy léegi laab na mën naa dal di sëy wa kasaalika naka noonu isa axtaqaha ndeem goreel na ko umul walat jaamu jigéen bi nga xam ne mu am ak sangam doom la wax ne bu ko sang ba jekkee jekk goreel ba tey kon day laablu rek te day toog ba gis menn mbërëg mooy bu gisee deret benn yoon rek mën naa daal di wutiwaat jëkkër fa in qaadat ndéem jekki na an xaydi walis mbërëg fa salaasat ashurin kon yetti weer lay doon kon su fekkee umul walat boobu dem na ba naagu ci gis deret mooy weesu naa gis deret kon day toog ñetti weer rek daal di mën a wutiwaat jëkkër ba tey nag bu fekkoon ne moom umul walad ba daa ëmb ba tey kon bu amee doom rek laablu ga dal nay mat li nga wax ne nag jigéen bu nekkee ci diine yahood mbaa nasaraan te jëkkëram ja ko yoroon di ab julit su jëkkër ja faatoo faaw rek ñu wax ko mu iddawu maanaam mu toog diir ba mu war a toog ndax bañ a jaxase askanu jullit boobee faatu ak leneen la nga cee xamaale mooy bu fekkoon ne jëkkëram ja ko yoroon du ab jullit ab yéefar la woon te ab jullit ñëwut bëgg koo takk duñ ci wax dara waaye nag bu ab jullit ñëwoon bëgg koo takk ci gannaaw ba dañ koy wax ne ko ah wala nga koo takk day na nga ko teeylu ba mu am yetti laab ndegam toll na ci gis deret bu fekkee nag dafa ndawee ba du gis deret wala mu magee ba du gis deret kon na ko bàyyi ba mu am yetti weer ci kaw nag yéefar ba ko njëkkoon a yor fekk jote woon naag moom dara waaye bu fekkee ni mayu kese moo doxoon seen diggante kon du jar mu koy laablu mën naa jekki-jekki takk ko wastibraul amati laablu jébbeer ba fintiqaali milki ci toxog moomeel ga xaydatun menn ba rek lay doon intaqala moo xam toxoona almilku moomeel ga bi bay xin ci sababu jaay aw xibatin wala maye aw sabin wala jàppe ci xare ba aw xayri zalika wala ludul loolee daa wax ne nag jamono yi mbirum jaam xewee soo amee jaam bu jigéen wër laa jékki-jékki joteeg moom war nga koo laablu ba xam fee mu bàyyi ko ëmbe na fa dara am déet moom nag boo bàyyee ba mu gis deret benn yoon rek dal nay baax deret dana wane ne moom ëmbul dara moo xam na nga ko amee day ak jaay mbaa ak may mbaa dañ ko jàppee ci xare ba mu bokk ci sa wàll yu demee noonu moom daal noo ko amee rek moom boo ko bàyyee ba mu gis deret benn yoon rek loolu ak laablu la wa man jébéer ba nga xam ne xiya moom fii xiyaasatihi nekk na ci ak làqam xadd xaadat mbir moom bërëg na indahoo fa moom su ma indahoo topp naka moom ishtaraha jënd na ko falastibra jeetug laablu xaleha di ko war indam tëkku ndéem nekkutoon taxaruju di génn nee na jaam bu jigéen boo xam ne moomoo ko sax waaye ci say loxo la nekkoon ndax dañ la ko tayle woon ci misaal mbaa ñu dénk la koy demee noonu xaman nga itam ne gisoon ne deret ba moom mi ëmbut waaye boobu nag moom a goo ko woon kon gannaaw bool bëti ko moom ko moo xam ne nga ko jënd moo xam ne la koo may ak nu mu la mën dikkee rek moom kon ndegam xaman nga ne yooyu jamono gisoon na deret man ngaa doyloo gis nga mu gisoon deret rek tàyyi ko laabluwaat lu may nag daana génn te xamoo génn googee mooy na ci yàlla am déet mbaa borom daana ñëw ci moom te xamoo jote naag moom déet su boobaa kon say boo ñu laablu ko moo gën a wóor wastibrau saxirati laablu xale bu jigéen ba fil bay ci jaay ga in kaanat dem nekkoon na tuuta u dee fi ko laal salaasat ashurin yetti weer lay doon jébbéer boo xam ne ci at yi moom gone la waaye nag daayes na joteeg moom kon day duñ xam ba xam ëmb naam ëmbut kon nag su fekkee yaa ko moom daa joteeg moom bu bëgg koo jaay bala nga koy jaay na nga ko laablu ba xam ëmb naam nit bu fekkee da nga ko jënd itam mbaa nga moom ko ci neneen daal ba tey xam nga du la wóor ba xam ëmb na fa mu nekk nam déet ndax moom daa yes na joteeg moom kon faaw lu mu ci mën doon rek na nga ko laablu te laablu gi nag yetti weer lay doon ndax ëmb moom balaa feeñ dëgg-dëgg daanaka am ñetti weer kon sayu bàyyi ko am ñetti weer ndax bu ëmbee ñu xam ko wal yaa isati laablu aji naagu ja minal maxyidi ci mbërëk talaasatu ashurin yetti weer lay doon jébéer boo am am gu yees te mu naagu ci gisati deret kon moom it ak laabloom yetti weer lay doon wallati jébéer ba nga xam ne laa tuutaw deefu ko laal daayi su ko laal falastibra teetu laablu fiyaa muy nekk ci moom jébéer boo xam ne moom dafa ndawe ndawe goo xam ne kenn daawul joteeg moom ndax bee nga weesu woon mooy bi nga xam ne ci at moom ndaw la waaye daayis na joteeg moom ndax mënees naa joteeg moom kii nag moom daa ndawe ndawe goo xam ne mëneesuta joteeg moom ni ki ku toll ci juróomi at rek kooku moom su fekkee ne yaa ko moom bëgg koo jaay mën ngaa jekki-jekki jaay ko jurta la bu fekkee da nga ko jënd itam moom ko moom gu yees bis boo demee bëgg a joteeg moom